comme aussi président jëfam dafa am ñoo xam ne toujours dañ koy essayer nëbb wala bu defee lu baax rek ñoom ñu ngi ci wut safaan comprendre nga donc moo tax moom tamit aussi euh, euh, am na euh, jàpp naa ne yenu na maanaa mu choisir ay moment yu yu ko gënal ak moment yoo xam ne parce que communication aussi yéen yéen a ma gën a xam communication waaw donc le président aussi dafay am ñu koy xelal ci communication donc euh, et puis aussi agendaam aussi loo xam ne aussi agendaam aussi dina ko permetre mais tey lii mu wane ni tax boo xoolee aussi même TER bi ba ñu waxee décembre yàgg na man boobu sax jàpp naa ne sax est-ce que boobu waxoon nañ sax élection locale janvier lay am xëy na moom mënoon na si xelam jàpp ne élection locale mën na nekk janvier mais que ñu wax ko boobu waxaguñ sax. ne élection local janvier la am mais waxoon na ne terre bi dina dem décembre mais xam nga te tey mënoon na ne terre bi dina dem décembre ba pare te te yàlla du ko dogal alors mais jàpp naa ne daal euh, président euh, même tey euh, bu duggoon ci combat bi mënul campagne mais ak lu mu mënti woon def man jàpp naa ne élection local beneen élection la du moom c'est vrai am na ay nitam yoo xam ne candidat candidat bi mu samp ñoom moom dina tax ñu woteel ko mais li ci ëpp solo mooy nit ka mu samp ca localité ba kooku bu fekkee ñam dëkkal wóoluwuñ ko doyu leen dëgg-dëgg Macky Sall tax kooku ñu fal waaw mën na nag nekk un un plus ci moom maanaam candidat am mën na nekk un plus mais euh, pour mu déterminant déedéet euh, te kooku it euh, su fekkee maire bu bu jo euh, sortant la par exemple kooku aussi sa bilan moo la war a fal mais mën nga bénéficier wu ci bilan wu Macky Sall le président Macky Sall ci lu mu def ca gox ba parce que président ak PUDC bi ak euh, ak euh, ak bourse familiale yi ak yeneen instrument yu mu yu mu kii yu mu yu mu yu mu yu mu yu mu ci politique am publique am na yu mu def ci localité yi aussi buñ ko buñ buñ bu buñ ko seetloo. waaw euh, euh, man euh, ci côté boobu defe naa sama engagement ci président de la république amatul lu luñ ci naatable waaw président Macky Sall ba ko ñu ñu bari gëmulee man dama ko gëm te li nit ñi xamul mooy man président Macky Sall dama nekkoon ak moom PDS te moo tax ma ñëw PDS mu jóge PDS ma gé ma jóge PDS ànd ak moom dans position te loolu yombuloon tey am na ñu nekk ministre dans le gouvernement. gouvernement moom bii laa wax de 2022 bii bugguma wax benn wala ñaar parce que kon dina xam ñan la ñu nekkoon ak moom PDS président Macky Sall dem dans l'opposition ñu toog PDS te terewul président Macky Sall tey defaat leen ministre wala def leen ministre de la République mais man sama engagement ci président de la République ba léegi maa ngi koy am ci wàllu politique nag mais nag syndicaliste la je dirige un syndicat d'enseignants su ma jiitewul syndicat d'enseignants wala tey waxuma ko pour am ndombo tànk mais tey su ma demoon ba président Macky Sall fal ma dara maanaam takkal ma ndombo tànk su ma demee ba xam ne mënatuma porter les revendications des syndicats parce que pour ma porte le revendications des syndicats dafay jafe parce que boobaa euh, mënoo nekk ci biir nekk ci biti mais xam nga tey man ci wàll politique maa ngi ci biir mais ci wàll ci li may yëngatu muy syndicat wala état nekkuma ci gouvernement par exemple je peux pas défendre le gouvernement parce que je ne siège pas au conseil des ministres euh, nekkuma directeur général nekkuma PCA donc man mënuma défendre euh, euh, politique ci côté boobu président de la République alors que maa ngi am nomba tànk feneen war a leen défendre donc jàng njàng bi damay défendre tey gis nga bi nga ma posé ay questions par rapport ak ay